le Sénégal match match match aller bi dañ ko ñak en Guinée mu nekkoon match bu c'était pas simple euh, mun nga ci revenir un peu qu'est-ce qui n'a pas marché je vois. waaw je vois que ni euh, on n'était pas à la hauteur ci sunu ay qualité mais il y a des matchs comme ça et en plus euh, dès na match retour bi bi nga xamante fi le sunu dëkk donc dinañ joxe lepp li nga xamante si mom lañu am pour que gagner match bi euh, à la manière quoi inchallah allah. lan lan moo ñàkk mm, am marché loon réellement ngeen ko rectifier. wa lepp lepp la ñuy rectifier comme ñak nañ match bi amna yu bari yo xamanteni ni si jàngat nañ ko ci offensivement on n'était pas aussi à la hauteur on n'était pas efficace et au niveau du milieu aussi xawon nañu déstabiliser wu touti lepp dal lepp dal lepp te on est conscient de ça xamnañ que ni euh, match bi du nek lo xamné lu yomb la et on se prépare bien pour que dimanche ñu ñëw bégal ñep bégal sénégalais bégal suñu bop aussi parce que buñu ñu suñu bop lay njëkkee avant que ñenen ñi di ci gis seen kon on va tout faire pour que pour se satisfaire à tout le monde quoi waaw non man pour man de pression quoi parce que on est des sénégalais fi lañ dëkk dëkkuñu ci jógewuñu ci àll bi pour ñëw fii nii jouer si wala kii fii lañ jouer championnat Sénégal jouer nañ fi lépp quoi fi lañ défé suñu catégorie yépp donc pour man euh, benn essence sas la mais jaaduna quoi jaadu jaaduna jaadu na pression ci ñun dañuy liggéey pour suñu dëkk dañuy xéxal pour suñu dëkk donc li wara def rek lañuy def après le reste mom dañuy bayyi ci loxoy yalla rek est-ce que sa sélection équipe U23 bi moom nga gënon xaar wala U U wala équipe A parce que ñëpp ñu ngi doon xaar équipe A aussi en même temps. wa xam nga man joueur laa et que liggéey bi rek moñu moñu moñu moñu amal solo quoi euh même U20 buñ ma wooyee damay dem parce que U20 donc Sénégal mo ma ñor voilà léegi léegi après li ci wara a ñëw rek day ñëw bu subaa bu ñu woowee équipe A aussi parce que nous on est des Sénégalais c'est le Sénégal qui nous intéresse donc pour le reste je pense que c'est des détails i 23 Jury, équipe à majeure partie bi pour la preuve on a joué dans les voilà 20 maintenant mu ci équipe A bi souhaiter ko li gën mu jëm donc ñun amuñu ci jaxlé côté bobu dañuy continuer liggéey té xam que ni lu jot yomb quoi. à deux mois et demi de la Coupe d'Afrique aussi ya ngoy du ñak am nga am nga envie jouer Coupe d'Afrique aussi. wa vraiment parce que jour nawetaan ni ci si jouer fii nii sax bo leen waxé ñom ñep bëgg nañ jouer Coupe d'Afrique pour sen dëkk kon man suma waxé que ni bëgguma ñëw défendre sama couleur dëkk c'est parce que damay wax luma neex vraiment amna envie ñëw téw pour le Sénégal wan Sénégal moo ma ñor je suis sénégalais je suis prêt pour défendre les couleurs du nation voilà le reste moom mu ngi noonu. di leen remercier rek et di leen wax ñu dolli ma ñaanal parce que comme on est des jeunes et que dañuy liggéey peut-être que ni li xaw gor gorlu mu ngi leen satisfaire donc nekkul ne fofu la wara a dañu wara gëna gor gorlu pour que li xaré ñu ñu ag fofu non wala ñu ag fuko ko quoi.